waaw euh, damay waxaat auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi gën a sant yàlla di ko sant di ko sant di ko sant bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di gën a yéexal sama njébbal ci cheikhul xaddim Mbàkke Balla Isa di nuyu sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo fa teewal cheikhul xaddim di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér duma mës a fàtte sëñ mustafa Sy as sama xarit sama wóllëre di wax waa àdduna bi ne leen sant naa yàlla man Selbé santati naa yàlla santati yàlla santati yàlla julli ci yonent bi sangu sang yi sallallahu alayhi wa bàyyi Faatuma toog Zeynab ak Ruqaya ak Umu Kalsum ah di gën a sant yàlla alhamdulilahi rabbil alamin dem naa wuy ji ba ñibbisi alhamdulilahi rabbil alamin di wax ñi nga xam ne tey ñoo xëy di wax naan Selbé dafa daw waqit fay portable billahi allazi la ilaha illa huwa man sénégalaise la fière d'être sénégalaise doon patriote man awma fenn fudul Sénégal yaakaaruma fenn fudul Sénégal ci réewu Macky sàll mi nga xam ne sàll ngaari lam toora euh, président bi nga xam ne mët na président am na fulla am na fayda nangu naa liggéey man duma daw surtout buur la doon doomu séeréer ay maami naar xoolal barke na ak am naa fit doomu séeréer laa di garmi ku samay maam gënul say maam say maam gënul samay maam daraje laa ilaha illallah muhammadu rasulullah nañu bàyyi li ñuy def dawuma fayu ma sama portable sama kër de la fanaan ku ñëwoon dig ma fi fekk di sant nag ñi nga xam ne sonn nañ ci man lool démb ba léegi ñu ngi may woo dama wuyu téléphone ba dama waaru ah xanaa yàq sama der bi rekk yàqal ma rekk bañ ma rekk te man bañ kenn ma kullu doomu aadama rekk pour man sama xarit nga ñoom yàkkamti nañ rek am selbe nii indi selbe nii allahu akbar def leen ma ni ma yàlla def mu noppal leen su ngeen ma deful ni ma yàlla def mu jaaxal leen chaque jour ma jaaxal leen te asgor war na arus ñu koy joxoñ naan ko yow yow mi yaa def nangam yaa tooñ nangam am na nag lu may seet bugguma jaxasoo ak yéen bëgguma benn benn lenteeg ak yéen ndax lool ngeen tàmm benn benn lente boobu ngeen tàmm ngeen may ma suma jàmm ngir jëmmi yàlla ak yonent bi balaa ngeen maa waxal naan selbe dafa daw waqat tëj këram tëj portable am loolu yëpp ay neefare la da di neefare dara nekku ci dëgg dem naa nag wuy ji ba ñëw di gërëm commandant bi macha allah ku baax la waaw di gërëm sama président de la république te xam ne billaahi wallaahi watallaahi kenn gënuma laa bëgg dara gi Seydina Muhammad gisuma ku ma la gën a bëgg amut duma ko nangu xëy na nag aw ma dooley wala am benn possibilité pour di dugg ci palais bu ma soñ chaque jour ma gis la yow li nga bëgg laa bëgg li nga bañ dama koy bañ ndax ba ma lay topp boobu doona góob président ba may daw di ànd ak yow boobu doona góob président may jaay say carte APR di ko renouveler di ko bind di jël filiation doomu aadama bi mu may jox ñaan fukki dërëm ma naan ko kii may doon président booba du tey kon du ma toog ba tey nga doon président de la république du Sénégal man Selbé Ndom ubbiyo maa du xee allahu akbar ma dama lay compte wala la nga wax dama koy teggi xaraamal naa ko billaahi wallaahi watallaahi loo bëgg loolu laay def loo bañ bañ naa ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah